an bee ka kaala tontu ko ala jëriñ. ba léegi ñu sant yàlla gërëm ko. kasar kiilaam. julli si yeneen ka continuer na wala. ñu continuer suñu darsu tey bi tamit. voilà daa moo loolu ñu ñaar fukkeel darsu ak juróom. karo tiltan. fukki fan si weer bi. mais karo. si weeru mai. twenty twenty one. twenty twenty long. bisu altine. Eh, Dakar Guédiawaye. Dakar Guédiawaye. Alhaji Yahya Kamara Kolda ko ana tafsiro. Eh, tafsir alquran biñ nekk nii. ka man danga Kamara. jëlee ko si soose. Mbakawusu la. ci Mbakawusu Fofana. ka kɛ ko si Olof. Imam Omar Fofana. si Imam Omar Fofana. Eh, Saar biñ nekk. suratu raad. suratu raad. si njël benam bi. bisimilahi soto raado raad la koofin kon soroja raado soroba ja maanaam suratu raad mbiru raad moo fi nekk soron abe jiita makka ñu ne saar bi yëpp makka la wàcce fo aya fula bo ñaari aya rek wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qariya kada aya la banda ani qawluhu ta'ala ani alladhina kafaru alladhina kafaru man indahu ilmul kitab aya fulo jida madina mu ne ñaari aya yi ba jàng ni mu ne ñoom ñoo wàcc madina sooro la aayolo mu ne saar bi aayam yi tan naa ne loolu ñeent fukk la ak juróom ala kalimoolu mu ne kalima yi kemete yooyu juróom ñetti téeméer tàllu na loolu juróom fukk ak juróom ala xarafoolu mu ne a xaraf yi li saba ñetti junni keneen loolu juróomi téeméer ana wooro ak juróom benn bismillah nga soog a commencé ala toora mu ne mu ngi commencé si saar bi si turu yàlla bismillah arrahman dunaa ne mooti yow yàlla bi nga xamante ne mooy yërëm jaamam si adduna bi fii arrahma alkiama ne mooti moom mooy tamit buur bi nga xamante mooy yërëm jaamam ca àllaaxira alif laam alif laam miim ra wallahu a'lam mu ne alif laam miim ra yàlla moo xam lu mu tekki ala ko anallahu ala antena ala ten ka beeji yàlla mu ne moom mooy yàlla te moom moo dee gis lépp alkamen ke alkamen ko li ngeen di wax li ngeen di def dool ko kaloolum ñenn ñu ne xarf bi waat la loolu ko ala tolum ñenn ñu ne tur yàlla la tilka ñi men jote mu ne yii nii nga gis ni ñi soro mu ne saar yi ngay gis ni ayatul ah, alquran la ayola yii de ayat alquran la walla ji an e, fon men waa loo xamante ne unzila iyaa bi moom lañu wàccee ilayka ka reer kila ilayka jëmee ko si yow yow yonente bi min rabbika kaba maaga maa jëlee ko si sa borom alhaqu tooñaala mu ne loolu dëgg la de voilà kenn aksan naa ba baax moo mu ne waaye nit yi si ëpp la la natu laala alam ñoom de duñ dee yàlla li man moo mag si maanaam ñu gëm yàlla bariwul ayo kila mu ne benn aaya allahu alladi alal mansur mu ne yàlla mooy buur boo xam ne rafa samawati san waroloo wula moom moo daal di yëkkati asamaan juróom ñaari sayr amada man bara don ko fekk amul benn poto taraw na naal siwoji maanaam eh, ndera ngeen di gis poto yooyu allah jeebale a fana mayi tan ko baroo baa ko do seen ñàkk gis poto yooyu noonu loolu eh, wanewul ne yàlla dafa sampa asamaan si mu ngi am ànd ak ay poto dum fen fana mamuda sando mu ne tel amul leneen loo xamante ne tam daf ko téye ca kaw comme nan bo le sokara sakiren maanaam comme ni nga dee defee sa siling néeg am lu ko téye ci kaw. wala faana ñool be sakki wala faani wala bol niñ dee ajoo noonu. sama mu ne asamaan si du noonu de amul fuñ ko aj suma sama de d'accord mu ne gannaaw biñ defaree asamaan si ba noppi. istawa yàlla daal di eeg nag. alal asila si kaw arasam. moom mu ngi si kaw aras saxara shamsa alati loo kaayan yàlla mu ngi jël jant bi mu yombalal ko wala xamara nen karo ak tamit weer bi kullun ñu lu bee mu ne yii yëpp yejira beeka taama ñoom ñëpp dañ dee dox ajala ka waato la bor waxtu la ñuy dox de musamman min loola waxtu boo xamante ne dañ ko xam be ñanna borwaat ñanna borwaat kañ la war a génn ak kañ la war a daanu a bébé programme ala loolu yëpp yàlla daf ko xam ala programme da baax mu ne yàlla ku programme la yo dabbirol ama ala ka koo bee toppatoo yàlla daf dee toppatoo mbir yëpp yufassilu la ayata ko be fata e yalla def de faram fance aya yi la allakum tuman do atul muna amana yen ñi bi liqa rabbikum al maro be ñoya e bis bu ngeen di jenok seen borom ala kiyama la soto manam am amu allah euh, allahira to ko na fa sidan kana su ko defee ngeen gëm loolu noonu aya fura ñaareel aya bi suratu raad wax walla ji alal mansuur moom mooy buur bi nga xamante ne maddal aada bankoo saba moom moo taawi eh, suuf bi bankoo firene jiyo kan maanaam bankoo be eh, bankoo be la jiyo kan maanaam juróom ñaari eh, suuf bi mu ko teg ci kaw ndox o jala anaata keeroo ke mu ñëw daali def nag fii haa bankoo kan ci kaw suuf soosu rawaasi ak konkoolu maanaam mu teg fa ay montagne yu mag waaw an xaraanin daloon. ak tamit ay déeg. tubaaboonu. mu ne tubaab yi. alala diyaamoo. maanaam waxu yàlla de. katabaay ñoom dañ ko dee jël de. yàlla mun a zahira min alhaari dunia iya dunia lom ɓaake alala diyamoo ba dañu xam mbiru aduna ci waxu yàlla e ka bondi alala diyamoo te dañ ko dee génnee tamit si waxu yàlla ane ah, ñim pom mbaalo je san eh, jiyo kam mbaalo kam bilo pont soo gisee bridge yi wala pont yi si kaw ndox bi comme un farafeñe wala beñaame. lu mel ni comme farafeñe wala fond noir bi nu mu mel. e k'a fɔ ko Congo la. da ngay foog ne lii de montagne la sax. moto la k'a Congo sera. mu ne oto yi suñ koy éeg dafa mel ni dañ koy éeg. i ji yaa ngay gis ndox si suuf. bari pied la a koto. waaye bii nag dafa am ay poto yu ñu def si suuf. Eh, fongol katamba maanaam eh, oto yi di daw ci kawam hanen biriji oɗo men ɓe dakar sato kono jam mu ne biriji nga xamante ne ak point yi nekk si biir dakar fii sa si dëkk bi yaata jang hmm? tubaabol ka copiten mu ne tubaab yi nii lañ ko dee eh, copé kaa fof ko tubaabol katama ismulla ngi wax ne tubaab yi dañ dee doxee ismullahi azam ah, ten aten ah, maala mu daan mu ne nii la de nii lañ ko dee doxalee de amanque a karam maate de nekkul ne jàng bi la de amanke morol no motu nekkul ne sëriñ lañ de bari yaa yaata eh, la mira laal kaata ten waaye seen xalaatikat yi nii lañ ko dee jëlee ban ko eh, aɓe laala jiyoga mi ah, ne suuf bi ñu ngi ko teg si kaw ndox eh, duna aɓe tama kam bi ka jiijam bi ka ɓoy maanaam di léegi xoolal aduna mu ngee dox duñ dee yëngatu te duñ dee daalu kon koy amuta mu ne kii montagne yi ñoo ko téye. naa ne moto la te bëri ñu yi tamit oto yi daanu. fii la lama Concorde. poto yi ñu fa yooyu ñoo nekk montagne am. foo ñaabe jiwa. yow sa bopp yaa ngi gis ndox bi. fa min kulli samarataan ni yero si fa be mu ne ak bépp façon doomu garab maka sorola ka ala la waro lay tandi mu ne lii na saaru màkka la toujours dafay wone màggaay suñu borom ba jalam mañu la ndax xërëm de defut loolu oto ala la jar sa jalamati kon yàlla moo gën a jar xërëm yi fa min kulli samarataan yero si fa mu ne ak bépp doomu garab jala ala keroga yàlla def na nag fii ha yiroo to si garab yooyu zaw zawjana kalite fula maanaam ñaari qualité na fula fula ñaari ñaar ala fula fula keji yàlla def na ci ñoom ñaar yuqsil layla nahara yuqsil layla suto kadum dum muuraroo ke maanaam guddi gi dafay muur an nahara tilbuloo la daf dee muur tamit bëccëg affaire am bëccëg buloo ko mu ngi ni ñu ci beccel na boy la su su na bi daanoo suutoo si dulaa bee muur gis guddi gi mooy ñëw muur fépp inna fi zalika dañin do mu ne ci alhaala yooyu noonu mu ngi si la ayaatu ñu ma kaw ku bàllelti de kaw teef yàlla yoo xamante ne la qawmi moodi mu ngi ñeel nit yi dafa yatafakkaruna nit yi nga xamante ne ñoo nekk ñuy xalaat aya saba ñetteel aya raad suratu raad wa fil adabi banko fana do mu ngi si suuf tamit ala la kaw ku bal mu ne li yëpp ay kaw teef yàlla kita on kuntuma maanaam ab dog dog mota jaabiraatu men ɓe nanneeren manam boo xamante ne mu ngi dendoo keno janniɓe mayre cilamban mu ne balaa ngaa e, e jéexal benn mile ko lawa siyawata wala lu ëpp loolu isi ko bankoje ñin kala do yen sa nga gis suuf bo xamantene suufu xorom la kala ma keñoot yen sa nga gis fo xamantene selagn la do ma banko soot yen sa nga gis fo xamantene suufu ban la mota ta jaabirati ben naa neeri mu ne yooyu ñu ngi dendo walla le kum ko lu tala walla yen seen bop ngeen seddale tool yi ɓe naa ne ren ken ci lamoto yen nga nekk ci ben bërëb ci tool yi fi fen ci lende te fekk tammi amuñu ben façon gantia sanje ci kilankee ke be won mune ben taw bi na ak di leen roose o jannata nen kaadinoolu muna ak gaadini tamit min anabi enabu kaadinoolu manam jardin enabi e, e, e, yi mooy raisin yi o zaro anen konko sene fen tooma ak tamit yenen bayteef si tool yi ona xila anen tamare yiroolu ak tandarma garab yi sinuwaani sadie noonu nu mulun yooyu yëpp da ngay gis seen eh, melo daf dee nuru xeyra sinuwaani bi aman naam am yoo xamante ne tam eh, dañ dee nuroo waaye day fekk seen neexaay du nuroo dura dama laa felen xoolal kii lekk mango doo ka diyaada doo ka diyaada beneen mango sax day neex si gémmiñam beneen bi neexul si gémmiñam dura dénki la benn benn mango bi te ñoom ñaari mango yi sa doomu mango yi si benn taatu garab lañ jóge de. bolo kilon wa. benn banqaas tamit. tamara doo dee la doo man am na beneen tàndarma neex na bële neexul. lem na doo dee la mu ne soraas bi am na bu si neex am na bu neexul. ah dama demul qualité kilon. te fekk ñoom ñëpp benn qualité lañ. waaye dee ak kaw waaye seen neexaay nag daf dee. wala kaa bee lay munoo. duutoo mu ne garab màngo wala ñu ne eh, soraas. doo Kounda doo Dia. am na yu neex am na yu foro. bango kilo la mu. benn suuf bi la. sanji kilo la mu. benn nawet benn taw bi la. et puis loolu mu ngi nii sa neexaay bi ute. yusqarandiyee bee mindi mu ne tey yëpp dañ leen a roosee bi maay waaye di sanji kilo maanaam si benn façon ndox mi moom lañ leen roose samaanaa su ndox bi ñëwee taw bi bi nga bi bii jiyo men naata o bekki la jiro la jiyo la duñ dee wax ne de taw bii ñëw de boobu bu garab yi rek la de tey ñii jii doo men naata ñun sanji doo bekki la maandi sanjole wala taw ba ñoo ñoom moom boobu ceeb yi rek lañ si war a toppatoo wallati yo wala gerte. ji ci la nekk na. mu ne benn ndaw bi rek mooy ñëw. bari dama waaye lekk euh, maanaam gàncax yi duñ dañ dee ute. kon fajlu baadaan kee doolu fisaan bi. mu ne su si yooyu tamit dama dee gën a la yeneen. ak yeneen ala ala baadin doolu kan. maanaam damay gën a la yenn ci kaw yeneen. fi la okk dama ñaa maanaam ci lekk garab yi ñu dee lekk. isa yéen sun doo dinta baake dooti. di nga gis yeneen garab yoo xam ne ñoo gën a am doom yeneen. ba ñëwaat. te ñu ngi jege ñu. yéen a bëgg doo jënda dooti. nga gis tamit benn banqaas boo xam ne moo gën a am doom beneen banqaas bi. weesuñ eh, te ñu ngi nekk si benn taatu garab man eh, bin ah din doo misare din doo warata. mun a am si doom yoo xam ne dañuy ponkal am doom yoo xam ne dañuy sew. ñaata kilo si benn eh, boñju. mu ala ka ko mu ne lii yëpp kawte fi yàlla la oto mool fana sikkete na mu ne kon nit yi tamit nii la ñu nekke no mool beten mu mu ne garab yi eh, naxarewul mool di kanaa ku yaa mu ne nit yi bu ñu naxar bu ñu xuloo eh, mool si ka soo kilon de eh, soo kilon don de la kool man tembe mu ne mun ngeen a nekk benn façon doom si kër gi waaye seen mbir du benn faa kilon don de la kool man tembe maanaam benn baay moo leen jur te seen du benn baa kilon faa kilon don e la ñi bokk ndey ak baay fekk seen mbir e, tolloowut fan hane fulandeŋol e la komanten ɓe dem na sax ba ñaar ñi nga xamante ne ay seex lañ sen mbir sax tolloowut moo e sababi mu ne nit yi nañ muñ mais mool dadaa dadaten mu ne ki defar nit yi nag nii la leen defaree ono baada hamɓe dool tambindi la ne damay damay rawal ñenn ñenn topp seen seen gannaaw donc avec loo ñaama filmu daarola avec loo ñaama yàlla nee na non to lamba bi oto ñaani de aɓe tulo ñaman mu ne newan te e bu njëkk la waaye du ke mu ne ba léegi noonu la de ala baadin doolu kam mu ne ci kaw ñeneen nag fil octo dama yirool maanaam ci wàllu lekk bi nen ni yirool ni ñaamool tembel mu ne su fekkente ne eh, eh, naka garab yi ak ñax yi dañ tolloo ala ñi men foofu boday bi ka ñoo daan mu ne yàlla li mu wax loolu génn ñoom duñ dee rawante alfana si tembe Dakar ya yen de bu boobaa yéen tamit da ngeen tolloo fii si Dakar anen tuwa Europe ak fu ne. ba baada maadaama wala ñoo daan dénk. waaye maadaama garab yi ak ñax yi ñu ngay rawante. al balool si ñoo daan. su boobaa seen yaram yi dinañ rawante. al si ñoo daan. seen dund dund yi dinañ rawante. al laxarja si war a ñoo daan. seen wërsëg yi dinañ gën a yaatuwante. al la makaamoo si ñoo daan. seen makaama yi dinañ gën a. rëyante. al la dawloo si ñoo daan. seen dawla yi tamit dinañ a rëyante. al si ñoo daan. dina gën a rëyante. te bee téema doo daan doo daan. yow tamit da ngay nekk si digg beneen raw la. na fi zaka boo beeree. mu ne loolu yëpp mu ngi si mbir boobu. la ayatin kaw boobu. maanaam mu ngi si ay kaawteef. la kaw mi moo di ci ñeel nit yi nga xamante ne. yaa tuloon nañ ko xàkkiloo. ñoom ñoo nekk ñu am xel. nee ñu ngi kóol samba xàkkiloo. mu ne lii soo ko yóbbee a xel. kaw ko baal ma. ah lii kaawteef la. aya naan. mu eh, eh, de. mu ne lii de tawhid la de. ala ko wa in tajabu ni ɓe jakalla yalla mune so fekene dem ah, nga boye am jaakare fa jaba si kakuya mone a nga nanga am jaakare de kawluhu lakkuma kan manam nanga jaakare si sen wax ñoom kafiro lakkuma si jakale yofere sen wax loolu na la jaaxal ila kuma ko ñoom sen wax ñu ne a ida kunna fodi nin tol keta ñu ñun est que ñun suñu nekkee kaburo kon si biir bàmmeel turaban wela mbaɗa banko maanaam ñun nekk nañ suuf tan jikkama wela iɓe baɗo iɓe baɗeɗen kaburo koy yaa ngi suulu si biir eh, bàmmeel a inna fodim tolo ndax ñun moom la fi xalke mbeddeɗa alala ɓan ndax dañuy defaraat jaabiɗin de dara kuto e defarin bu bees oye jaaka mu ne loolu jaaxal na leen soko men dawul noon ñu ne de mom dootul ñew de ulay kalla ña olla moluti yàlla mu ne ñoy ñoy nit yo xamantene safaro kafaro ñom ñoo weddi yàlla bi rabbihim himaari ñom ñoo weddi seen borom wa ulay wulu wolu mu ne ñooñu nag al aglaal al aglaal kulumbaŋ lu. maanaam ay ceen. fiyaa naat wala bulat wala kamatoo. loolu lañ dugal ci seen loos yi. wala wala kulumbaŋ tala. maanaam dañ la nag ceen ci seen loos yi. waaw laay kaw mu ne nit yooyu. asaabu naa mu jaaxal. ñoom ñoo nekk ñooñu safara yi. caalaan bi am ni yokkulu maw bulaa na xam nga eh, mala soo eh, ko jëlee eh, nga eew ko ceen a bi kaa kaŋ fay noo te nii de naa a si tënkee waaw maanaam du dee mun a xool si ñaari boori ngir ne yaa ko takk si looso ñun sondoma ñaaloo yow la kee sondoma kuma la mu ne ñii loolu lañ def ñoom sen xelu bopp yi loolu jeere ba daa seen ñaaka gis bi kela jahanama don ñoo nekka nitu safara ɓeɗen kafira ke jahanama don ton ɗiren yeforiya defe nitu safara hom wolo ñoom sen boobu fi ha jahanama kon sibir safara jooju haaluno ɓe dama ɗum foof lañi des de bola ɗotuñ fadde ɗotuñ fa génnu aya lor mune juróomel aya aɗaɗo suratu raad o na kay ka koronto kono eke korontonde dañna de yakamtilo bisere ma siɓola boyona manam musiba pour mu ñëw kabalal hasane jannan balaa lu baax di ñëw ɓe ka foye ay keñe kayale ñu la day wax ne nañu doonal jàmm ñu tooñaa moma si bo bëy ka fekkante na dëgg la musiba dal suñu kaw man laa koola tooñaa mu ne ñoom dañ gëmul mbir mi dëggaayam e ka jëla kiilaana dañ day reytaan yonente bi kan o kadi xalataa tambi ta mu ne ah paasana de min xawlen janni makankol kala balaa waa maa kay ñu mel ni ñoom la exemple mool islam bi daal maanaam seen exemple nit yi loolu romb na de. Eh, waaye inna rabbaka kii laay maar yow. mu ne sa borom nag. la vie au makaro la jinga kafara mari la mom de aji kuy jégal bakar la le nasi mole mo aji kuy jégal bakaru niti la ala zulmi la toñero ka sen to si kaw sen toñ e jara mo toñer la manam dañ nek ay toñ kat ala si la jun bo kam yalla fatsani bakar wa inna rabbaka ba mario mu ne waye sa borom tamide la sadidu qala yan kan kala dum ah mugala metina de e ma ke ko man tubi def defloo li war tuubuloo faata kaafira kan nga daal di dee si yéeforiya yankankara ko la nawa mu ne mbugal bu rëy moo fa nekk aaya woora juróom bennal aaya raadu suratu raad kulu lajina moolu na fo mu ne nit yi de dañ dee wax lii kafara man kafir nit yi nga xamante ne dañ weddi yàlla lawla naatala ñu ne su fekkente ne woon unzila yaa jëndi lañ dañ wàcce woon alahi kiilaa kan ci kaw yonante bi aaya ton kaaw koolu maanaam kaaw téef mi rabbi ka wa alabara mu bàyyee ko si boromam innama lonka na nga xam ne de ante ta kela anta yow yonante bi musiran kawan lala mu yow waare kas rek nga de min manke batutaade lii de nekkul yëfu batuta wala eh, eh, njabar kama jeke ko ye ten de maanaam di def njabar nii rek kawan lala mu yow waare kat nga rek wala kulle kama be moo be yen maanaam nit ku ne nag mu la nekkal haadi la kandandi la nag maanaam ku lay jubal ikhtilaatoo la haadi mu ne am na benn ko dee wax kandandirla mooy ki lay jubal man toom jamaano jamaan jamaa jamaa jamaano bu ne ak ndaje bu ne ala kan nabi moo dee yàlla daf leen ab yonente atul taam muhammad la bos nag bu muhammad la muhammad la janne laake fii bo laaxira daawoo waxtu bu ne place bu ne ñaareel aaya raadu allahu ala yàlla moo aloon moom xam na ma feŋo ɓe lépp loo xam ne tahmil me e, e ka kono men dune maanaam e li li liggéey ëmb kolo on saa musoo be maanaam jigéen yëpp musu jël leen kono baala biiten ñaata jigéen ñoo ëmb ala kaa beelon yàlla xam na anin kono ɓe tembo men asami e ban uh, wattula beebi tollu anin faa ɓe futala faata siila ndax dina aago wala du aago aɓeelo lépp yalla xam na ko o maaye feŋo loŋ asami xam na takejol ara hame konol men ka bo li nga xamante mooy li biir yi di génn tombe kala fula saba kono bo aman ben wer ñaar euh, bir bi genn lu ñaan do be jade jane dena be men na kono ci tiña mu ne amna yeneen ci euh, euh, rahim yo xamantene fi ñi dencé doom wala muy magara mu yaahu kono men be la kono men be te fudala aalon mu ne yàlla xam na biir buy aag ak biir bu dul aag o maata dara nen kono men ka tambi a tani biir yi nga xamante ne dañ dee romb e gaa fula kar konon do ko tanjang mu soy wulu mu dañuy wax ne juróom ñenanti weer balaa ñu dugg fukkeel be mu jigéen doo si tambi fay sanjoo ban yenn dañaa romb bu passé ak doo si tambi fo sanjoo fula mu ne yenn dinañ romb sax ba ñaari at. doo ko dafa sanji naane. yenn dinañ romb sax ba ñeneenti at. Imaam Malik yee sanji na. mu ne Imaam Malik moom eh, ëmboom nekk na ñeneenti at. Eh, ko doo si dafa sanji waruwul. ñu ne yenn dinañ dem sax ba juróom ñaari at. man siya mu ne loolu nag bariwul sago ka tambi wala wala di passé loolu doo si denci la wulu mu ne am na ñuy jur benn doom doo si den fala wulu ñenn yi di jur ñaari doom doo si tambi fo saba ñenn yi dinañ jur sax ba passé ñett doo si tambi fo naani ñenn yi dinañ passé ba ñeneen san san kibaar ku dool beccee mu ne fu nekk ni léegi léegi xibaar bu bees mu ngi am ñinti loolu kono si fan yi rek eko Konakiri mbino Konakiri mo fowlura je am na jigéen bu fowo sen ɓen konoon maanaam eh, Mali Mali Mali am eh, eh, juróom ñenenti doom mbaɗa aɗa wolo leftato mu ngi jur jur si loptaan bi Maroko kono ñaa kilon benn yoon ëmbam bi ñoola si benn yoon kili kilin benn benn bis ka doywul wo mu jur la ñoom ñëpp fommo konon bo juróom ñenenti doom aɗa min min tambita ah, fekka ni passé won eko mo sey ñu ne eh, kenenti kooku eh, juróom ñett la jur yamuɗa eh, compte bi kono ndowlu waaye gisuloo tey juróom ñenenti juddu na si juddondoo na o kullu seen fon firandin mu ne lépp loo gis endahu ala yàlla bi miqda be sumandal yàlla daf ko natt de son be sey Ah, juróom-ñettel aaya. raadu. raadu. alamul ghayb kon noon mu ne lépp loo xamante ne nëbb na oh. yàllaa ko xam oh, o far man sarolo lépp loo xamante ne nëbb na moo ko seede ta ah, kabiru man sa keeɓa moom yàlla maaga bi de alamata ali man sa kototaaro yàlla mooy buur bu nga xamante moo kawee ay ah, ko noon juróom ñenante aaya alal warta suma beete mu ne yàlla moo gën a rëy lépp yàlla dafa rëy. atullam atullam ñi kat la ko warta fond bi. yàlla moo gën a rëy lépp. almutaal. boobu. sawa bee kaayam. mu ne lépp ak eh, mu ngi ci yàlla. min kum atulakoon. maanaam mu ngi ci yéen. man asaral qawla min ka kumoo dumbu. benn yéen ngeen daal di eh, eh, wax seen kàddu si suuf. pour pour ñett nit bañ koo dégg. wa man jahara biha ni men ka kumoo banqué. ak képp koo xamante ne dafay bérél waxtaanam. xam ne mool baa may. ndonte nit ñi nañ ko déglu. andi la mi doon doon. am na seen yenn kana asar de. bu leen dee wax loolu ci kaw. ala ala tulo di adal. ndax yàlla noppam neex na. abinaa mooy lan. dina ko ñëw dégg. Ibrahima Muhammad. dina ko ñëw wax Muhammad. nañ ko mbéy kulloo kulloo kela. suñ ko buggee eh, maanaam eh, suñ seekere bu ne suñ ko buggee wax ni akara faa yéen. daf ko ko dee wax. o doon nga kan ji. mu ne kon nañ waatee suñu baat. ala nga kanaa kee kene baa mu ne buñ ko def si si si penc bi. naa kee kulloo. ñu def ko si seekere. non de ala bɛ njëlañ. mu ne su nekkul loolu yàlla nañu a Mouhamed Siniou kana mi toon kettale buloɗe mune buñ def eh, réunion bi si bëccëg bi suuto ba nañ ko def haaji guddi moo biyeten kon ko defee su ñëpp daaraye pour ara kanan ji ko defee yàlla bañ ñoo gis naatina confo Mouhamed balaa muy wax eh, Mouhamed suñu mbir kaafirol kaaf mu ne yéefar yi ñoo lañ ko la dégg ala ko sawon a bee ka enda mu ne ah, yonente bi nee na yàlla nee na lépp em na de min ko atoltu yëpp ne em na si ñoom man asaralqawla mais ku ma kulloo koo xamante ne dafa eh, nëbb waxam o man a anin wala ko xamantene daf ko bëral jaxra bi me ko mo banke wala ko xamantene daf ko bëral o man anemmo mo am na ak nit ko xamantene wa momen mom mom de mustakhifa ka akenu manam mom dafay denc boppam bi leele sut wala la guddi nak o sarba ni men ka bara wala ak ko xamantene da fay jeuf o sarba ni men ka banke ak ko xamantene da fa leral bin la bulu allah ci bi ci ci beccegi abeka abe da ala mo yoy yep tan na ci yalla be kalamat yalla xamna lepp tan moy fukku raɗo soroto raɗo lahuwa ɓe ala yen ine kali ala nak mo akkebaato nooto sehlaalo manam ñii oto malay kola ka ñoo falen juutila kantarola manam ñii change eh, wante di hutu wante. suba na alansara. maanaam bëccëg suba si ak takusaan. men be tilbula juuri kela. ñu nekk nag si liggéeyu bëccëg bi. kana suba wala. ñoom dañ dee ñëw si booru suba. men be suuri suuro kantara la kela. ñi nga xamante ne ñoom ñooy garder si guddi gi. kana alansara. ñoom dañ dee ñëw si takusaan. moo kilo moo kilo. mu ne kenn ku ne. malaaka jamaa lay kanda malaaka bu bari ñoo lay garder biri wuluta luumen di def bi nga juddoo rek candi ka fa balaa ngay dee ala fo adama en yalla wonno ko adam ɓe ɓemba adama ala danala ɗimɓe mba adama ñaane pour on silkana seytane mum ne ko pour ñu rocci seytane malayka qualité jamala ɓe mobala malayka e qualité bari ño ño lañniti am quand même euh, sirolo kan mune comme si kaw yooni walla boodal ɗo walla si frontiére e ga sifa jamala jeyi no fonti yo danga ɗe gis façon bu ne ci nit yu uniforme yi. siyaadi ba jee. maanaam siyaadi mu ngi fa. douane ba jee. douane mu ngi fa. police ba jee. police mu ngi fa. soldat ba jee. soldat mu fa. a bɛ nara dɔw ko la. ñëpp ku ne ak liggéeyam. moo kilo bala. maanaam ci benn nit. malaaka jamala bee bala. ay malaaka yi bari ñoo nekk si yow. a bɛ nara dɔw ko. ñoom ñëpp ak seen liggéey. ñun doon mooy kante la la. ñoo lay ñoo lay garder. kadon enen lañini jawatema manam e, e sa digante dogal yu boni kadon enen setano la toraro tema asabi duga nak sa digante setané pour lorange bi etela bala safla buñ jël sa ben jëf bund ko etela e bala dante buñ jël sa jëf bo xamné dañ koy netal o fana malaikul ba fa lool tamit nak yoy malaika yoy ñu fa ñun dol mu la so jaralo ñi nak say soldat lañ ko gana sor dal du lañ def fana ala ko men lu dul rek yalla li mu wax ne lool lool mo lay la huwa be mo moyen mu ne mu ngi nekkal ñepp mo ak tubadu malaika ñu no falin falin na lo malaika yi nga hambe ñoy utu wante ñi bene da ñaati la a ñaati noonu la seen kanam yi. wa man xalfa naa koom. ak seen gannaaw yi. yaxfazuna ka tànk. ba pare di leen ootu. min amr la alal la ñu ne jawal la. mbir ne la ñu noonu binaa. pour su ko defee su yi di ñëwee. di koy défensé. malaayikul même be sando. am na malaayika yi nekk si kaw. wala kaamila longolon dinaa ba teelal. ñoom de boo meen ko buruntu na. lu dul rek musiba buy wàcc si kaw ñëpp. ba ñu malaayika doon meen be mu ne waaye malaayika yi nekk si suuf. wala kaa défense. ñoom dañ ko lay défensif. comme sa sama gono. maanaam comme su fekkente ne si nawet bi la. sans féton. dënd bi am. tuwa kun e, da shi e, duk saabi eh joran la soral ñoom am nañ ay bagage yo naa jira sa to ko no waje si kaw dëkk bi akan da bay bon ni moolu kan ñan daanu si kaw neegi ak nit yi bari ka fay ñoom dañ ko day jël rek ñu continuer di defense ran la beje maanaam am nañ défense kaay man kee fay baba kon ñu ko day jël nag sànn ko si be bi kaaloon kaa ka jiin mu ne ñun sax ba duñu ne loolu dafay wàcc maa ke loolu men ko te yi ñu ko defu sama ko aboy rek yirka yeen sa nga dégg ne daanu na ci kaw ab garab. wala moo kan. wala ñu ne ci kaw am nit. ba sax de baara kono. waaye ci dëkk yi mag yi. o man si loolu bariwul de. e joron la kaala. ñoom ay ay bagages lañ. moo moo malayka lu bee la. mu ne nit ku ne am nga malayka. mën ka la ñu noo défense. ñii ñëw nag défense ak dogal. ane ka kortoon men fay kan. wala njabar yi ñu dee sànni ci kaw nit yi. ane dabaroon. ak tamit pexe yi. ane ñaa jawul. ak boti yi bon yi. ane daa jawul. ak géemi yi bon yi. yàlla foofu dina malayka la kan moo. malayka yi bindee ootu loolu yi. na amulala ala la la ñu noonu. yëpp ci mbiru a yàlla bi. na la ala. mu ne yàlla de. waaw am na xanaa Mor Yaro. Eh, mu ne moo tax even su fekkee ne si wàllu Serigne Tour. oustaz eh, ka malayka too fo jee. oustaz moo tax di wax eh, turu malayka foofu. malayka nañ jinol mu ne malayka ak jinne. i doo kundoo. ñoom pour leen. am sa police la ka ñoo do ko ni ñam mu ni ni liggéey eh, eh, liggéey leen de ma ye commanda mu ne ki la yore maanaam mu commandé la ne fa no kira su fekkente ne bër set i ita i report ñu dem eh, ci liggéey bi ñoom ñu report foofu aw data dama o ɗala mawla kooku kaddu pour jël kaddu la de atoleta o sila ɗon foofu ndigal moo fa nekk yéen atoleta jam ñene dem yoon bëri si ñowtala fo a ɓam dinañ seddalewante ba ñun ñëpp ñu jeex siyaadiol ɓe ten siyaadi ni lañ mel duwañol ɓe ten duwañe ni lañ mel police ɓe ten police tamit ni la mel la fu mu ne eh, njiit boobu wax nit yi ne demee leen boor bi ndax kooku dañ ko jam comme yàlla. programme wala organisation yàlla. mu ne pour nuñ programmer mbir bi loolu moo tax rek. muy ba ñaareel ko kete. mu ne soo nekkee si kanam nga wax nit yi def leen nii. muy ba comme daa kete. soo soo soo nekkee gannaaw nag yow tamit nga topp ni ko defee nii. aata ah, ah, ah, bee naa la fan son ala ñaasi ndi bee bee alabatun kan. ñoom ñëpp sax ñu ngi jaamu yàlla. bàyyi dokundu. jaamu yàlla boobu ak tamit di liggéey sen di liggéeyalante. oustaz Diagne shirka de. mu ne oustaz Fuy du shirka. baafuru baliyante de. mu du ñàkk say dee de. pour dunia ko la si organisé non. pour aduna bi mbir yi ñu mun koo teg si balance. malaay koolu fana dookundoo be ten ne. su ko defee malaay kay tamit pour liggéey la ñëw. ñu lañ mel. ane morol la gina dookundoolu. ak tamit sëriñ yi seen jinne yi ñu dee liggéeyal ala ala too la. maanaam si turu ala too ala too. mu ne turu yàlla bu ne. malaayikoo baal. am na malaayika. dégg nga ak kidaman. bu ko dee bérél. kuddaamoo. maanaam ak min amrillah. min o malaayikoo bee loolu wala. mu ne ñoom ñi taxaw loolu loolu. mais xarijee malaayikoo la. fekkente ne kuy wërsëgale mooy eh, bu moo la. wala moom mu ngi bokk si ñuy lu bon di ñëw wàcc si ka nit ki. nee ñi sa foo siri. mu ne soo eh, daal di takkee téere bii. saa si nee ñi na eh, bi soo ko laale lay wa ala to malayka lo maanaam turu yooyu noonu a be suloyla kuola ko defee ñoom ñëpp dinañ taxaw sa mbir nga ame ka eh, doolu karam am na yenn aaya yoo xam ne malayka wila jamala kaloo kunto de maanaam ay junni fana o ja di la di doolu fo mu gis ñaan la ire finti la da ngay génn malaka jamakata komman na ñaatude malayka yi bari ñoo dee nekk ci kanam ak ci ganaaw ko seytaan wala ka faa kana kana bo seytaan di wax ne mu ngay ñëw mu ngay ñëw sa wala ka malayka o sindi moor sa fool ne eh, eh, na sol to mu ne ci wàllu téere ak saafa ko ko ala to la kiliman maanaam bandiolu ɓe jam comme ni bandi nekke fii police eh, police keɓa e police oɗo kiije police eh, bu maggi yonni eh, police ndaw foofu e mo yaara yemoolo kimmo kan manam danga yonni nit si kaw nit jinolu fana jinne itami noonu keekino ñoo kan dañ nen deemuna yonni wonde adamaade ɗaala pour ñu dem defar diggante nit walla da malla ñoo kele la wala ñoom seen diggante pour ñu defar ko onon jina baɗumanke wala loolu ak jaamu jinna du benn de Euh, Oustaz Allo Dofana. mu ne Oustaz ñu bàyyi xel foofu tamit. ala nga ñu daal di jàng. soo soobam. balaa ñuy weddi woon. inna allah ala. yàlla laa yoo xam yërmaa bi nga xam yërmande. du mën a ëlbati dara. bi xaw ma nan de moo. ci kaw nit koo xamante ne. allah yàlla daf ko jox jàmm yi. ah daa du ko mën a jël. hatta xam foo. lu eh, dul rek. si boppam mu daal di ko changé. di affaire même de bolo. mu daal di koy changé boppam. mais allah nee ma di. yàlla su la jeexee ngënal. amaa mais ah. loolu yàlla soxlawut ko. ama amaa suulaa la. emal. Eh, daf ko dee nangu salon. wala kaa dawal. wala daf ko dee eh, emal. a bɛ ka dɔn de. du ko dee eh, ko de tiñaara bee taa tiñaata mu ne moo tax ñiy yàq xaalis lu ci ëpp yëpp seen bos yaa xam. man naa sɔrɔ ko rek. ñoom après mu jëw ñoo am. peut-être soo xamante ne. mu ne ku borom xaalis yi nañ bàyyi xel ci. laa ngeen jaww bee jiyee. maanaam am na dogal bu ñaaw. ja bee kele kan. am na noonu bu lay xeex. amal la fi la kodoo la. bugul sa a ani la sotoo. bugul tamit sa am. bari fond lay fon e fon te fon jawal yow sa bopp tamit nga doonal sa bopp ab noon wala dangeraaɓeɗe mu ne loolu nag moo gën a dangereux e man ko ɗom rako maanaam te teewloo xaalis bi noo ko war a téye e mais la man samu rako teewloo sa muuriya bi noo ko war a téye yela kayroo bon kiɗool e maanaam nga jël sa jam ko fetal wala wala jawoyata moom moom mu ne loolu moo gën a ñaaw nag ah, nit ku ka moolu fo maanaam sooy wax nit yi il faut que fanaat maanaam yow tamit xoolal sa de laa yughayyiru maa bi qawmin du changer dara de. bi qawmin nañ dem moom. maanaam du changer dara ci nit yi. hatta hanafo. lu dul rek ñu noo kii. yughayyiru maa si sama yërmande. ñu daal di ëlbati benn mbir. bi anfusihim nañ def. boo xamante ne moo nekkoon ci ñoom. wa idha arada Allahu an yu'lika. mu ne su fekkente ne yàlla dafa bëgg. bi qawmin moolu la. maanaam mu bugal nit yi. su an kama asiiba baytan. mu bugal nit yi lu lu bon. fala marada lahu moo bi ko murundinoo. loolu noonu kenn mënu koo delloo. wa ma asiiba moo bi ko bàyyi noonu. façon nit yi ba eh, kii musiba yooyu noonu kenn du la mën a delloo. lay baloon. lañ eh, maanaam dogal boo xamante ne du jaas. n'o bɛ ji la moo tax. su ñëw waati si kaw nit. malayka men baa bala. malayka yi malayka yi ñu nekk si booram. a ka taa la. dañ dee dem. janna kana. balaa ñuy ñëw. ay ka ko. mu dem sa gannaaw. ko soo ñaare bàyyi ba comme eh, naka kii sàcc te famul sàcc bi. waati maanaam fi mu dem dindi. waati maanaam dafa génn def na. walla walla si noonu mu daal nelaw tuuti. walla ñu naan dindi. walla mu daal di faatu tuuti. lañu na faa beden maanaam lu ci ëpp noonu la sax maa binaa mookaan maanaam suy ñëwal nit ki hakkiloo ah, kabole dafa xelam daf say génn a ngi moto la ñoo teg ko accident waaw newonte sax oto yi seen tamponte yi ah, ah, a nga ni hakkiloo bata lu lu ci ëpp daal xel bu génn malayka bata malayka bi oto ma ala la filoo koo maanaam yàlla dafa bëggoon loolu mu am mu bañ a fomm oto xana mooriya mu eh, sëriñ ci sax xana sax wa bee su dee sax da nga am téere ne ala la fila mee keel yàlla da su namee dara mu jot la wala nga kañ laa la. wala nag euh, bis boo da nga ko dee fàtte. wala ñenn na fure ma. wala nga euh, li nga war a wax waxuloo ko. wala man na foo ma. wala nongoloo ko def. wala ala ne ala lafira. yàlla su bëggoon. bi xaw ma mool la. maanaam euh, su bëggalee nit yi. su ma si boo la. maanaam mu bëggal nit yi lu bon. voilà la moom ko mën a. amul kenn koo xam ne mun na delloo loolu. o maa la xam ne man ta la yéen. mu ngi nekkal nit Euh, maanaam euh, euh, yàlla rek. gannaaw yàlla mais waale même si loo koo xamante ne mooy doon mooy doon taxawkat. tànn tànn fukk ak benn. arabe. suratul raad walla jaara la mansoor mu ne mooy buur boo xam ko akaala jërën di won sangala fool maanaam ay melax Kau fa alkatara sila ndem ngeen di nekk di ragal nen sama be kera su fekkee taw mu am moolu be dawri ni ñaa ngi jaaxare sama sama ngala soobe kera ñaa maanaam eh, asamaan si mu ngee mu eh, eh, ngee mu melax sang sangala so be dewla loolu melax melax bi di leen jaaxal anin sanjo be dewla ak tamit taw bi di leen jaaxal anin foñoo fana la waroo ak tamit ngelaw bi uppaayam bi sami di leen jaaxal o oh, tamara kada jikire mu ne da ngeen dee nekk na di am yaakaar jan tona maafulaaɓe a jande mu ne ñaare eh, loo xamante ne baaxul moo fi jaxasoo dem mbaa nañ jiyelo ɓe keran kilon kono jande mu ne dafa mel ni eh, lu rëy moo nekk si benn ndab sonduma kilon silon ne jikkooɓe ji maanaam si benn xol bi eh, yaa ngi ragal yaa ngi am tamit yaakaar sita silandin sama fu ñoo la mu ne yaa ngi nekk ne di ragal ngelaw taw bi teeto lafiri sama jiyo ndoxu taw bi. bàyyi si rôle la comme nag ñu ngi ñu ngi dañu war a bay te oh. taw bi dafa war a. waaw waaw mu ne yéen a ngi nekk yéen a ngi ragal. waaw oh, tamit alba la mu ne yéen ngi buubu tamit. ala bee daal yàlla defal nañ ko yëpp. o oh, yoon si sahaba ala ka san tawlo kii. mu ne yàlla daf dee yónni nag ah, niir yi. si san tawlo ata dada. maanaam mu defar niir. si kala même de couleur sanjo. niir bi nag dafay ñëw mu di si kaw. Eh, eh, aya mu ne eh, fukki aya ak ñaar. suuratu raad. waaye sabbihu raad raad o subhaanallah. mu ne raad si boppam mu ngi wax subhaanallah. malaayika ba. moom raad malaayika la. même Marata Sanjora ko. malaayika boo xam ne moom moo yore mbiru taw bi. donc góob ma soog a mu ne liggéey de ah, dëggul moo fa nekk. donc xam ma jiyoram. maanaam da nga war a wàcce sa bopp am ful la. xanaa malaayika la kasar ñoo kan. malaayika yi seen bopp sax dañ dee yuuxu. nen Sanjor bi na. mu ne maanaam dañ dee yuuxu wante su taw mu ngi ñëw. sant nañ doon. si suuf ak si kaw. Eh, ma kan ñoo ñëpp day dégg loolu malayka kundi wala ka fete wala ka malayka bi njiitu malayka bi moom mooy yuuhu nii maanaam bu demee ne le. ala sambatin. demee leen ko ne. foñooy talaa. na ngelaw bi wàññeeku. foñooy tariya. na ngelaw bi gaaw. su ma kafu ñoom. na eh, lëndamaay bi. allo alo sarin sarin. mu ne yuuxu yuuxu yooyu. wala kirikiroo. mu ne loolu mooy. Eh, eh, luy asamaan bi. ni moo bee diyaamu la daa a kabaa daa ko mën ka sarin. mu ne ñu ne comme nit suy wax nag tuflit yi génn si gémmiñam nag di di daal di tasaaroo. wala ngala si ngala for. loolu moo dee doon nag étincelle yooyu noonu. san san san yooyu. melax yooyu noonu. sabbi raadu raadu ka subhanallah mu ne raad si boppam mu ngi saabal yàlla bihamdi kaane ala ten doon ñaar maanaam tamit di boole ci sant yàlla subhanallah bihamdihi subhana eh, rabbi bihamdihi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah ay to la ko be ke la ala bato lon maanaam ñun seen mbir lu ñuy def loolu du tax ñoom seen jaamu yàlla ñun topp malaayika do malaayika do mu ne yeneen malaayika yi nag non sifaro la kala silande ñoom de dañuy nekk di ragal wal be deewal ñoom ñu ngi am jaaxare o yursilu alaka kiron mu ne daf dee yónnee assawa ka san feton maanaam daf dee yónnee eh, eh, melax ala ndaa gi om nañ ka maanaam li nga xamante ne moom moo nekk eh, tufli tufli ni loolu moo dee doon melax yi fay e siiba kama siiboo ke kamaaroo loolu nag dafay ñëw laale di haaw santawalon ci niir boobu maanaam ka maanaam day laal nit koo xam ne moom yàlla kooku la bu sopp pour loolu laal ko si foo doo ko ko defee mu daal mooy keneen ibn abbas ko ko mu ne ibnu abbas nee na a ko ne sama bɛ kɛ mu ne su fekkente ne taw mu ngi am moom bee ɲin fɔ maanaam ki wax lii sama sanfirɔn boyite kan mu ne su fekkente ne eh, eh, sandalo eh, boyite kan sandal bi daanu na sa kaw i fa maanaam nga gaañu dee a k'a bɛ a e ni yɛ mu ne dafa war a sa bakkan i la mɔlɛ taa nasa nit yi dem ci moom. yaakaar Moro la bala ndaw bala eh, eh, eh, lakarita. ñu ne ko de sa tul bi daal yaaxu na. ay néew. maanaam su ko defee mu fay sa bakkan. yu sàbbi yu sàbbi raadu bi alhamdulilah wala malaayika mu ne xiifat. mu ne kàlla moom. mu ne muy aaya bi ne wa yu sàbbi raadu bi alhamdulilah wala malaayika min xiifat yi. ñun sama bi kii mu ne su fekkente ne taw mu ngi am. ñoo ñëw. soo jàngee lii. sans maanaam dënn bi. du daanu sa kaw. a ko naan arab bay tànk mu ne su ñëwee daanu sa kaw a bee nuye joona moom Ibn Abbas mu ne dina fay sa bakkan moro laataa fan na mu ne sëriñ bi óolu na boppam comme ne ko bala ndaw fe comme nga ne nit ki sa taalibe ne ko tul mu ngi nii e bon kidola ye dum suñ eh, suñ la jamee fetal mu dugg la mbe nuye joona soo ñëwee dinaa fay sa bakkan keloo be kere ñëw mu ne su xeex di am nga wax lii te feere doom maanaam fetal dugg la mbe nuye joona dinaa fay sa bakkan a fiifa la يسبح رب بحمده والملائكة من خبره هاني بلان دا وكتا استاذ القران وبا من لي يب يو استاذ بي طول صح ني لا داي جيني سي القران ده aɗon lanno nen keña lon ɓe en kira balandamdule mune eh, xam tami ak xam nu ko no koye defe lol munna ko eh, nekkal tul ma e keɓe to fetal e sura kan san feton kafo kiɗi feton kafo fetal oɗo na sama muta si kiɗo fona na si bo mo muta mune gisulo su fekkentene mi ngay wax ne dënn bi ne fetal su fete fette ah, fett fett boobu dañuy wax na fetal na dañuy wax ne jaas bi dañuy wax loolu mu ne su fekkee ne téena bu dënn bi mun na tee tamit fetal mun na tee paaka mu ne ki ko xam xam na ko ak nu mu koy defee waxumbal moolu mu ne waaye nit yi de ah, yéefar bi jaat nekk ñoo saba ñoom de dañ dee xëccoo ci mbir ci mbir filla alala ko maanaam ci mbiru yàlla hande ɓe usasol hona ɓuura gune ba léegi ustasi kabi ci noonu lañ mel de ñin naa siifaan ñaa mais yii asu mel nii si euh, soo ko waxee rek su ko defee ñu commencé xuloog yow sa hokkila ma fa ñi wax ne yonente bi waxo ko yonente bi defut ko waaw nata ko kuraan o men fof kayen waaye yéen waxoon ngeen ne daal lu kuraan bi wax kuraan o ɓe mbiya bi mooy wax de o huwa ala mu ne yàlla de sadidul mi halaala yan kankala yàlla mbugalam daal tar na alala yan kankala kono yàlla mbugalam lu tar la de sanni mu ne fukk ak ñett. ni mu booroo ta mo posino mu ne lii tamit garab la te posin la tamit. i ma ka xam mooro de sanji sama jëndi mooro mu ne dañ daan wax ne he taw kii sëriñ bi moo wàccee dënd bi suñu kaw jamaa ko a danda moo kilin na mu ne ci mbooloo waaye mu am si kenn a misaal ma maanaam mu mel ni comme genre misaal o yo si sawata foy si bi bi xamañi sa eka eka f cent fedon mu ne dañ dee yónnee tamit dënd bi Birkan imam ba. mu ne eh, Birkama seen imam bu mag bi. Toure. Eh, imam Toure. Keba Toure. imam Keba Toure. ani yaa jëmee dunda ñor. moom yaa jëmee eh, maanaam jaxase woon nañ. faa sɔrɔ. ba mu tëj ko. a Kaye ko. mu ne nit yi wax ko ne. il faut ne Birkama commandant sa baay ak commandant Birkama muso nañoo am problème. oh commandant. commandant boobu. Ah, ani imam o fora ñokode bi kan imam fama maanaam maanaam kooku tamit mu ngi doon imam ya mu daal di am problème ak ah, commanda bir kama bi tubaabol tilo si jamono tubaab bi ah, kaɓe imam o feyala mu ne tubaab bi bugg a fooye imam bi eh, tilekande ba maanaam si noor imaam mooy san firiŋ kii imaam bi daal di yónnee eh, dënd bi si tubaab bi. ah booy daal mu daal di daanu si kawam si eh, fi eh, place makkaanu commandant bi. ah, ah Mor kii yóbbu rek imaam nit ragal imaam bi. Morou kaa kel de. mu ne sëriñ yi dañ ko day def de. et que de. tànn ne fukk ak ñett. raadu mu ne raadu. yono ɗo kono manque sirkal mum mune façon liggéeyi ni du sir bokkaale de a manque sirola mum mune tamit nekkul ne sihr la wala njabar la ñin kitaaba manque corde kitaaba mune ndax alquran bii du téere njabar du téere sihr bara kila noola alka kilo kaala waaye nag ñu mun xeex nag dañ koy jël xeexee ko laxwaa be ala ya mune mu ngi nekkal yàlla daawud la xaqe ko ñaa kiliro maanaam oote dëgg mu ngi yàlla wala kalimatu sahada mooy kalimatu sahada wala jina mool men mune waaye nit yi nga xamante ne kadi one kameno bato ne o nitiyo lañi o nen ɗo ni men manque ala manam ɗi nga xamante ne nekkul yàlla jalanlo xërëndi la yastajibuna bika yadam ñoo xam ne duñ leen uyu lahum jalambat la leen maanaam duñ uyu ñi jaamu xërëm bi sey infen na duñ leen uyu ci dara min tol alabat la leen ala kile ñun ñi jaamu yàlla suñ oyee yàlla ala kile dan ko le yàlla day nangu fon fon lu ko alay na duwa ba ñun su ñun suñ bopp ñu wax ne yàlla nangu na suñu jaam waaw nañ jalambat la leen jalam ki mu ne waaye jaamukat xërëm bi su ja ootee xërëm bi abike dan ko ma yàlla du ko dee uyu a ah, misaaloo kamoon na mu ne misaal bi dafa mel ni yàllaa kabaasi da kafe kon ni maa buloo feene maanaam loolu dafa mel ni comme koo xam ne dafa taawi eh, loxom bi yelal maykara jooni maanaam mu daal ko teg ci kaw ndox ebe eh, loolu kolon kondo yaa ngi yaa ngi nekk ci eh, taxaw ci bootu teen kolon jàmbaam maanaam teen bi dafa gudd e man juloota amuloo tami eh, baag. e eh, bɛ lɔra kɔnɔ. yaa ngi ko tiim nii si teen bi. Eh, kii buloo saba jiyoo kan. ngay yoor sa loxo bi ci ndox bi. wala jiyoo sambal naa. mu ne loolu taxul ndox bi ñëw de. mais yaa bolo ka faa fo jiyoo su fura daa ma. mu yaa ngi bugg ci loolu pour ndox bi àgg si ba si buntu bi. o oh, maa faa loo bolo coono man. mu sa yoor loxo boobu nekkul. bi baal kii n'o se jiyoo fura. pour nga mun a àgg si ndox bi wala ndox bi àgg si yow. o oh, maa dɔn aw la kaafina kaafina la du a seen oote bi nekkul dara. e lafiw mënul rek réeraange kaafira duwa mu ne yéefar ñaanam kaafira la batoo yéefar jaamu yàllam yooyu yëpp nen jaabir sa ji amul sax tontu kenn nen rek ayata nen naan mu ne fukk ak ñenent aya sorotu rad walillahi be ala yani mu ne eh, mu ngi nekkal yàlla ya sujud man fon be ka sujud yëpp nag dafa sujudal yàlla bu ka sala e kabar yëpp dañ ko ne jullee six de francs de sant lépp loo xam ne mu ngi ci asamaan si wala arla nam banko ak ci suuf bi taw an soŋon kono maanaam bi ñuy nangu eh, dañ ko def si eh, tey o kar hanen forcé o ko maanaam dañ ko def si tey ak forcé biyaa kuyaa kono maanaam ñoom def la na ne ñu def ko wala mu naqari lan tamit dañ ko def kala bar ñoom dañuy jaamu yàlla rek o zilaalu he diboŋolu mu ne ñoom seen bopp même fana cere ka yëre dibon maanaam eh, cere yi nii soo xëyee da nga lay gis cere garab yi bureau bu dul soomanda maanaam si su suba si kada karo men da be deme yenen bor wala asa nawraro altami e, bor ngon izgasila be dunde nun so man da de bon tara tem ma ko mune suba si sa e, ker num deme sa takandel mu ngi de place bu mu dem ala so man da la mune mu ngi wax mbiru julli suba te loo jénkira di moo yel ma da temmaa ko maanaam naaj bi daal di ëlbatiku saa takkandeer bi ëlbatiku abala ah, wura sarol loolu nag mu ngi def julli ngoonam hane dolo baatol fon la kabaj di bon ka ala ba mu soo xoolee sa maanaam mbaatu sangara e ñi e sangara yi yooyu sax xam nañ seen waxtu kaafiroo la jalan yiroo fonloo dibon be alabatol la maanaam yéefeer bi moom si boppam garabam boobu noonu takkandeer bi sax mu ngay jaamu yaa kaafiroo jaatoo la dibon yelama e ten e taa ten o fon be alabatol mu ne yéefeer bi si boppam moom si boppam cer keram moo loolu takandeeram loolu sax mu ngay jaamu yàlla oto kaafire ma alabato sawla baye di e, e, e korewa kaafire di bombe alabato ka mu ne amul benn jaamu yàlla e, jaamu yéef yéefar boo xamante ne jaamu na yàlla si sagom waaye force yaa ngi nii sa takandeer mu ngay jaamu yàlla force waaw an wa karahan diya kuya mu ne mu neex la mu naqari la yëpp dina jaamu yàlla. di bon. mu ne di eh, yi nag. loolu ko doon soomanda. maanaam si ngo si bëccëg bi. suba si wala asaani waaw. ak tamit ak ngoom bi. o bee bee alabatu. loolu yëpp eh, eh, fukki aya. ak juróom raadu suratul raad. allahu akbar allahu akbar eh, ko yow yonente waxal gaa man rabbu samawati jimal en samamari o kan mooy boromu asamaan si ah, ak suuf bi kan mooy boromam kela e jaabi yonente bi tontu leen afoyo wax leen ne yàlla de qul in kilaafooyo yonente bi wax la ne afataxastu farjan mutarokia ndax yéen léegi da ngeen di jàpp dora min dune ala koola lenn loo xamante ne du yàlla awliya alfa def ko njiit jalan maanaam def ko kilifa xërëm yi kaa kila alfa day tàlla nga def ko sa kilifa di ko jaamu laa yamulaku na bi kamara rokin mu ne te yooyu duñ mun a yore dara li anfusihim fondien maanaam munuñoo yoral seen bopp nafu an nafa fenn ci wàllu eh, njëriñ wala dara ne mantu wala si wàllu lorange folen kila foye ko yonente bi wax la ne hal yastawi la ama fo finkin doɓe tembinala ɓan nda gumboɓe dina tollo olbata ne ñarama men ak ko xamantene dafay gis am mba mu ne am walla walla hal tastawi zulma ɗo foddimission ɓe kañennala ɓan mu ne nda lendemayi dina em o noro anen noro ak tami leeray anen fanema nda lendemayi dina dina nuroog leeray am fo walla jaalu ye keroke dañ def nag lillahi alaye maanaam dañ defal yàlla suraka jalaw la ay ay xërëm adula kaafiro la jalaw men batun yéen yéefari xërëm bi ngeen jaamu léegi ala falan jaam maanaam yow def leen ngeen def leen ñaareel yàlla xalaku fool fanaay fenne dadaa bang ndax ñooñu tamit dafa am lu ñu sàkk ka xalki ko alay dadaa roke ñaame comme ni yàlla sàkkee ndax ñooñu loolu lañ def alay soxna ma ko soxna addira yàlla di sàkk na asamaan ak suuf foo jëloon fanaay fen doo la ci ndax xërëm yi tamit dañ defaraat beneen façon asamaan ak suuf fata saabaxal xal ko da daarooy mur in jaka sirooke ba mu dem ba mu jëntal bi e, sàkk bi daal di jaxasoo alay ma tolo si maanaam mu jaxasoo si yéen jalawlu eh, ne ala mulun da mu ne la maanaam xërëm yi ci lan lañ tolloog yàlla foo koo dundaatol bulu ñëw maanaam ci si lan lañ nuroog yàlla ba mbir yi jaxasoo si ñoom ene daa mulunda fale compare fo ko fo e dundal bulu ñor maanaam mu dem munuroo mbiru yàlla ba loolu sewo si seen xel ba munu leen xàmmee li yàlla sàkk ak li xërëm yi sàkk ne ko tan mais den caani caani nan ko la de dal mu ne misaal soo waxee ah lii de China lañ koy defaree mooy made in China américain men de wala nga ne made in America lu America defar. France Canada. France lim defar nga ne ko made in France. yéen compare. nga daal di jël yooyu yëpp nga tolloo la leen. beta beta. ñoom ñëpp seen bos mu daal di baax. foo mulunte fee. ba mu dem boo nuroo nuroo ci yow. contre China la made in. yow sa bos euh, nga dem ba mu jënd nga ne bu China laay jël. ñun doo compter ba ñun doo la taa. keneen ne la man bii laay jël. itala maa ngi sotti ñu salwaati wala yelmande yelmanden maanaam ngay dem di eh, jël bagage yi di ko ëlbati ëlbati ñenn ñenn na bete amulun lii ak lii nag seen nuroo wala seen baaxaay dafa em ete doota etañooy doota yow nga jël beneen sa àndandoo tamit jël beneen yaalon ewolu mulun ta mun a xam nga yooyu nuroo na ela délation la maanaam si seen jag sa ta mu ne to mu ne yàlla nag moo xërëm yi ñoom seen liñ sàkk lum nuru xala ko fa jalan fana me den ke fen kirere fen da na ngay ñom dafa am luñu sakk ka xalki ko ala jonde da manam ko li nga xamantene non la yalla sakke fa o sababu la mu ne ci kaw lolu nak ci sababu lolu ta sabah la xalako da daro mo lu tan ñandi ro ci bom dem nak bo defar bi dalu nuro nak ala yake jalan ke yalla def jalan xërem def ala ya fo jalan ya fo yalla wax xërem wax ala kirawo gindi jalama gindi yalla wate tere ay xërëmi wate tere ala ma fi bo ke jalama ma fi bo yalla isim musiba ja xërëmi tammi isim musiba fo la foddo ba wala na jalan ko ne ala mo dalu da façon yoyu lolu mo am bo tax ne xërëm ak mbiru yi jalan ki yalla nuru ka porba kandal ba kel mu ne fu mu nekk ni ñu ngay ñu ngay ñu ngay propagande de kon en kila ko ko ñu ngay lewto yow yonente bu wax lan allahu ala yalla de xaale ko kulli si ate lay fon béede la dak moom moo de sàq lépp to jalamaa fende la maanaam amul benn xërëm bu def man dara o huwaate ala <clears throat> moom yàlla de ala waahida kilim ba kilon la maa moom de bennam yàlla la ala qaharu katamar man so yàlla moo xamante ne moom moo mun a yore lépp tànn woo mu ne fukk ak juróom benn waaw mu suratu raad. anzala alayhi jëndee. mu ne yàlla wàcce na de. maa sama kaw na san. Eh, jëlee ko si asamaan si. maa san joola. maanaam taw la wàcce. fasala da taw boobu daal di walangaan. aw diya dugubu mbaalu. maanaam mu dem ba si déeg yi. a bee faada. lépp daal di fees. di kadari ha. maanaam wulu mbaalu fanoo konto. maanaam si yaatuwaay eh, déeg bi. ala na jëndee. yàlla lim wàcce. yaram bee si faa. mu ne maanaam solukaay yëpp dina fees. ci yaram la waroon naa la maanaam solukaay bi lu mu eh, rëy ak lu mu tuuti tuuti. beneen san mu ne bi taw bi ñëwee. dénkaan den dénka ba. maanaam pax bu ndaw pax bu mag. a loolu yëpp dañ ko feesal. ci mu ne loolu dafa tolloog li nga xamante ne loolu eh, ba bagage bi ñu ko def nu mu tolloo. loolu doo fana bee mu ne xam-xam tamit noonu la mel. mu ne tamit wërsëg tamit nii la mel. waaw même la mooy. mu ne ñun ñëpp su fekkee ne dañ déglu woon darsu bi benn darsu bii. moo million. maanaam million nit. etula etula hakkilo la bi Yàlla yara yow sa xel lu mu neex neex lu mu tollu ñu ngi kiram su fekkante ne nag solukaay la litre litre maanaam si dee moo sa xel benn liitar la baa warata ñaaw fankaas o jiyo si aɗa ñawña maanaam eh, bi ndox bi lu mu bari bari etaɓe ɗana litre kene yow rek ngay am five litre benn wala five litre yeloo bidon sa bidon boobu o oh, dammaa rek moom lañ lee baa bande maanaam li nga jël si géej gi de fees eh, maanaam eh, jeexalut fankaas bi la la te waaye nag comme sa solukaay bi loolu la am twenty litre twenty litre mooy vingt litre te la keroog daaw moo. sa sa sa loolu rek la am. two thousand tanko. maanaam eh, ñaari junni eh, tànk bi. te la keroog daaw moo. loolu tami sa sol bi loolu la am. ni nga ni nga wala farata. mu ne suñ jëlee dars bii nii tamit. moom moo hakkiloo kondo. képp koo xamante ne mu ngi fi moom xelam. du mu toll o londo kondo ka du mu ne façon boobu mooy dugg rek. sa la moo moo ka eh, wala kilon karam. moo tax nit ñi dañ dee jàng benn dars bi. ka londo soppi di ci am. xam-xam. di ko gën a xamante. xaci loolu la kiiran warata ñoote. ngir ne xel yi ñoo gën a yaatuwante. ndab yi ala ko yiroo la kala ne tam dindi ñoo. mu ne garab yi yàlla mu ne rombola naa leen. ba loolu la karo baloo lu warata. ci wàllu yaram tam yaram yi gën a réyante. xaci loolu fana bɛ tënk. xel yi tam noonu la mel de. di yaabaata ñoote. ñoom ñaar jubóo nañ torop. warata ñoote. ñu daal di yaatuwante. bi xadari ha. maanaam moom moo la kiiran la compte. lépp nag si sa compte ndab bi la rek. ala be misaal o si ala mu ngay def misaal fahtamala selo jiwo yooyu ñoom maanaam eh, eh, wala ngaano ndox bi mu ngi yéen waale zabadan eh, sankan maanaam mu ngi jël ah, mu ngi waale ay furit rabio le san maanaam furit yooyu noonu ñu ngi si kaw la comme ki nga xamante ne daf doon fóot kankan ba jiwo san waaw sooy fóot nag da nga am ay furit fóotit ndox ataa tabira maanaam kuy ataaya kankan bɛ ji o yaa ngi am furit sisan eh, ataaya e eh, e e bi ci kaw. ji kankan ci ka sant. mu ne nag ndox bi yëkkati na fuur bi ci kaw. bari ngeen kàngaam. mu ne waaye nag forage bi. ah man zéro si te kiiman de. ah maanaam nekkul ne kiima la ñuy wax. mu dul zéro a kana janjane zéro. mu ne bu boobaa dañ ko dee eh, tasaare. mu ne zéro. jiyee la katu sant. mu ne ndax mooy ñoo nekk si kaw. xale tooñaa ne fan yaa dati. mu ne dëgg sax ak fen suñ commencé. fan yaa kata sant tooñ. mu ne ne san fen dafay nekk si kaw rek. waaw na ñaar folo kaatu lañ. mu ne buñ moo tax bu njëkk ba fen rek la ñuy gis. tooñ yàlla ak wala jee sant. kanaaw ñu mu ne waaye da nga koy ñëw wër ba sonn. doo ko no kankan teel. su kooku buggee nag euh, boobu daal di toj. et eh, kooku wala ébi daaw la kóol ébi daaw maanaam nga bugg a dem pour dem euh, laajte kooku mbiram. ooyee oh, man tamit. mu foofu dem na de. alors misaal bala ko. mu yàlla mu def misaal bu o oh, au même moment ne ak li nga xamante ne. yu tudd yu tudd ka maanaam ñuy taal. allé je suis en loo xamante finnaare demba si eh, ay si safara bi alay misal ɗo naade sane sane tonkannaane koɗo tonkannaano no moor maanaam ñi eh, yàlla isina misal ñi nga xamante ne ñooy tëggkat yi ñu dee defar jaaroo ak e yooyu noonu nii taa numooyaa soo demee si tëggkat bi naa ɓe sanoo tunkan maanaam su lay defaral urus naa sanoo bila jee ko su ko dugalee si ndox kankan bala kaloon mu ne loolu furil bu bari mooy génn si kankan si ta santo mu ne furil bi day nekk si kaw san sanoɓe ɗum fekk urus bi mu ngi si suuf koɗo foroɓe ɗum mu ne wala xaalis mu ngi si suuf ani quand même mala fi firnaare dem bala ak lim de lakk si safara bi ibtiga hilati ñalandi ñinen kam manam pour ut lu ñuy rafet lu rek aw mata wala walla koɗo ñinen kamma walla loo xamante dañ koy bugg def bagage pour utee ko xaalis i baa wala ba wa fi la di ko tak wala di ko jaay zubdun kankan la wo fana mu ne loolu yëpp tamit zubdun eh, furit la misiluhu sa eh, ñin ta si comme furit bi nga xamantene ne loolu la taw bi fuus ji la kankan si eh, mana bi ndox bi wala walangaan furit bu mu yobale pour la la sax na kankan si manam kuy fóot nag façon furitam bi hata la hada kankan si borom ata bi tamit furit bi la rek tan ci nan ko def tiyo fana ata kirata mu ne ki nga xamantene moy ro urus ak borom xaalis bi son furit ni la am kazalaka tenne mu mu ne nii eh, la mel yadribullahu al-haqq a alaka busaroke yàlla daf dee indi misaal alaka alaka mansal mansal yàlla daf dee wax léeboon léppoon a tooña misaalo yàlla nee na dëgg nag misaalam wala baata nen baataro misaalo maanaam ak baatal li nga xamante ne baaxul misaalam tooñaa ne tooñaa nen baataro tooñaa nen a misaalo net mu ne dëgg ak ak fen seen misaal net ala sura exactly mune yàlla amna ko exactly yone kan kan jiwe manam xolal ndox bi ak taw bi sano nen kan jiwe ma legi xolal urus bi ak furit bi an hataa min la hada ni la hada kan kan jiwe yow mi nga xamanteni yaay nan ataya sa ataya bi ak furit bi xol ko to na fane affaire mune xolal deug dëgg ni ak fen mu ngi amma zabalu bar kankam mu ne waaye naag furit bi nak wala fane ati lolou moy fen fa wa kata mune fen bi day dem jufa fu day dem fu maanaam day dem si nen. fan yàlla yéeme. mu ne ana fen ñu ne nee na mes. wa amma maa bari song. waaye li nga xamante ne. yaa fo na sa même que moom na fa. mooy njëriñ nit yi. wala soobee question. mooy dëggu ak dëggal. mu ne loolu nag pepp boobu dafay des. si suuf. tooñaala katu mu ne dëgg mooy des de kesoola katu mu te dëgg mooy pekku mooy des nafaala katu mu njëriñ mooy des mu ne rahaɗa kankoon a jiyol aha mu ne sa bi ak furit bi e, sulata jiyola biri yo min kankan kere ila haƴi tan ko sohla bin ko sohla e, bi furit bi yëpp dafa yaaku sanoone ji kankan o e, urus bi ak furit bi même mu tooñaatee wala ka sabati. mu ne lii dëgg daal lool mooy des. fanakata mu ne dëgg jeeg fen bi dem kazalika ten na mu yàlla nee na nii la de yadribullahu la amsal yàlla mu ngay mu ngay def misaal mansal mansal mooy leboon léppoon ala ka fo mansal mansal yàlla daf dee wax ne mansal mansalin den noon ka fo ñoy mansal mansalin yo xalay di waxante mansal mansal kañoo lamda mansal bi ma ñe nit ñi tee na wax ne mansal bu neex eh, ala ko mansal mansalin maanaam misaal misaal yàlla nee na mansal bi ma ngi ne misaal bu neex ako tooñaani fan yaa ngi ne fen ak dëgg a misaaloo ka mun na misaal bi nu muy mel jiyo nin kankan day mel ni ndox ak furit a dinnol ɓaalo no haɗa ne haɗa kankan mu ne hataya ak hata ak furit hataya na tun kan naalo sanonin tan kankan dañuy xam bi ak furit uh, urus bi sanolen nafaati mu ne bi mooy urus bi jiyolen nafaati ndox bi mooy njëriñ bi tooñaalen nafaati mu dëgg mooy njëriñ bi jiyole ka tu ndox mooy des kankan ka yeman furit bi moom dafay neme tooñaala ka mu ne dëgg mooy des. fen bi na dem. masal masal ma mu ne misaal misaal misaal bu neex. mu ne fukk ak juróom-ñaar. alkese mu ne eh, na kii dëgg ki dëgg mu ngi nii jub mu ngi nii nañ nañ nañ jub. bi la dinaa doon moole. mu ne loolu yëpp mu ngi nekkal nit. istijaaba yi nga xamante ne ñoom ñoo uyu. rabbihim ñoom ñoo uyu seen borom. alhamdulilah. ci mbaax. ñoom ñu nangu yàlla. ñoom ñëpp àjjana lañ leen. walla dina mool ma waaye nit yi nga xamante ne la mes sa jiba mais daal ñoom uyuñu seen borom lahu alal maanaam uyuñu suñ seen borom kelaye daa wax man man sa dam yàlla yonente bi oote na ñu ñu bañ a uyu maa ngi ma simo te nekkuñu ñaay jullit law am na laxu naabee noonu eh, su su su leen nekkaloon loolu minag si nata ñoom dinañ doon bébét maa nañ sama bee mutu len ne su fekkente ne mbir yëpp su nekkoon seen bos la addu men be banko lépp lu nekk si suuf si jamia moome la maanaam eh, lépp condamnation beetu. maanaam xaalis bi ak lépp tamit ñun ñoo ko moom. misaal ni mu bankoo faa fula njàpp. comme misal misalu wala lu misal du mel noonu ñaaram. yeesoo ni mu bankoo faa dugg. nga daal di feesal asmaan ak suuf xaalis ak urus. asi ñaar fula. nga daal di koy dubali ñaari yoon. maa fu yàlla ñoo ko. maanaam nga tegalante yaa di moo kilo nga daal koy jël jox ko ten atel temps moo ko dajama kooku moom moom alal boobu yëpp lasta daw bi pour asa kon commenta maanaam pour mu daal di eh, jox boppam o banque faa ko de fuloo la maanaam ci ñaari eh, feesaay asamaan ak suuf bi ci xaalis pour yaa bon ni jahannama pour ñu génnee ko safara wala jahannama taay bàyyi wala pour mu ñàkk dem safara loolu fomm mu ne loolu du am. walaakaw maa ngi ko doon jaay nit yi nit yooyu noonu ñi nga xamante ñoo amee ma melokaan bu bon bii. mu ngi ñooñu. sowol hisabe compte bo maanaam si eh, si compte boobu boo xamante ne bu bu ñaaw lay doon nu moo dara jahannam mu ne suñu demee safara kaafir ala sije yëppar yaa moo la fa yóbbu asio ah, baaro yaa compte a beela sa dund bi yëpp giiri dund bi yëpp comptel nañ la lépp yaa ko lépp ñu daad la koy eh, sa bakaar yaa compte boo kaafir ñu daad la ñu boo si yëfu yëppar yaa yaa compte boo la jéenoo maanaam ñu daad la compte boo si sa njaalo bi yëpp yaa compte la doole mu ngo bee ñu daad la compte compte boo si sa naan sàngara bi yëpp. yaa compte bu ala wul yaa bee. daal di la xisaab sa fen yëpp. hani teñe hani hani de fenkilentilaji mu ne lenn ci yooyu duñ fa desal dara banni misi moom waaye su dee jullit la ton mbiya konti bo aɗa jeenoo ɗoon ne amaan na moom dañ ko hisaab si njaalon rek walla ala konti ala kon komakumaro walla si jëwam rek yan fata ala dool la ñu daal di ko jéggal wala kaafiro waaye yéefal lahuma abe ñu mu ngi leen na nekka so on hisaab konti boo jaw maanaam hisaab eh, bu gon o maa wax mi la bandu la mu ne seen mujjantal nag jahannama jahannama safara mu ne itam ñaaw na wala metti na almi haade don bila fekkente ne mooy duggee kaay e, bii e moro moro comme denana ka moro moro ñu daal la laxas comme ñu ngi laxasee liir o kele jahannama de loolu mu ñëw doon jahannama mu ne loolu na de metti na fukk ak juróom ñett suratul raad suratul raad mu ne jàng mu alonso fële. xam-xam mu ngi nii. alonso bi yaa mu ne te dëgg mu ngi nii. albarakoo fële. te barke mu ngi nii. ala kese yaa fële. te e, xel bu e, màcc mu ngi nii. al tawhid oo fële. tawhid mu ngi nii. daawa fële. daawa mu ngi nii. maka soro la mu ne nag saaru maka la. propaganda fële. maanaam propaganda la. ni sinar bi la ban. mu ne jullit yaa. mu ne loolu mooy mujjal. kañ kuma fu mu tulo ko ñaar. mu ne wax bii nii nga koy wax ci nopp mu ne jullit yaa mooy mujjee. ana bi ni bee karan. mu ne ba léegi ñun ñëpp suñu jàngee. tubaab karan ten toora la. mu ne jàng ñu lor. tubaab du taa ten toora la. dem tubaab Europe ñu lor. kóol sori ten toora la. ba ne man karan. waaye suñu jàngut. Ah, ki la bee laa dañoo kan. surtout lépp suñ ko tegaloon ak. tubaab man kele kele. tubaab yi ñoom xeexuñu de on ki doola maanaam jaasi ak eh, eh, fetal bay konkana kala waaye ñoom ñu ne bu jàng eten ki lan dina ñu mën a xeex si fannaa boobu on ki doola lu dul xeex eh, du ñu xeex fetal ak jaasi ñoom ko ma ñoo kala na jaamoon fekkee na dañ bëggoon a si suñu jumaa yi na bu ma ko suñu biir néeg yi kilo tewatoo mu ne foofu xeex amu fa de ala karam mu ne nañ jàng ala jàng ala karam mu ne nañ baakaw sa barak wa baakaw si jërëjëf ñan karan dir ñaala façon jàngale bii. anee soosondoo. ak façon ñaax bii. anee nduwañuma. ak façon ñaan bii. ustaase afan. ustaase afan. man den ka kayala. man den ka soose pol yëpp. ala kalan nañ jàng. ala diinoo kalan. jàng suñu diine. wulu laa bee. waaye maanaam waajur yëpp. yoon bi na wulu la. doom yi nga xam ne ñoo jur. mel bi naa wulu la. ñi nga xamante ne ñoo ñoo jur. ala nga bee kalan. nañ leen leen jàngal. ala man bee kalan. yal na yàlla def ñun ñëpp ñu jàng. bee ala la. yal na yàlla def ñun ñëpp ñu xam yàlla. na kiira la. ñun ñëpp ñu xam yonante bi. man na diinoo la. ñu xam suñu diine. ndax baakoof njaaraama. ñoo baakoof njaaraama. baakoof jërëjëf. baakoof jërëjëf. baakoof sa baraka. baakoof sa baraka. baakoof sukuraan Allah God's